waaw li ci des euh, donc ci fukki milliards ak juróom yooyu euh, donc dañ koy jégleel li nga xamante ne mooy investissement parce que euh, li ñu doon financer mooy besoin en fonds de roulement pour permettre entreprise yi vraiment ñu taxaw donc li ñuy wax préserver l'outil de travail beneen bi objectif bi mooy que ne c'était pour que employé vraiment ñu bañ a am ñu licencier vraiment ñu mën leen fay loolu donc objectif boobu atteindre nañ ko ba moo tax fi mu toll nii Euh, tey li ñu war a def nag mooy financer li nga xamante ni mooy investissement xam nga soo toogee lu yàgg lu mel ni euh, vraiment da nga war a investir ensuite monde bi day changer yi nga xamante ne ni ñu bëri dañuy dem à un niveau zéro ñun ñëppay jógandoo kon ku gën a am financement bu kii euh, investissement bu baax rek gën a defaraat li ngay liggéeyee sa juntuwaay ñooñu la nit ci di gën a soxla kon Sénégal dafa war a préparer wu ci loolu euh, donc euh, war a donc jàppale entreprise yi jox leen ay financement en investissement pour ñu war a defalaat lépp nga xamante ne ni touristes yi donc seen clients yi suñu ñëwee dinañ kontaan kon loolu dañ koy jagleel ci loolu ak di xaar nag leneen li nga xamante ne ni gouvernement bi donc dina dina dina dinañ ñu ko jox.